waaw ginnaaw bi ma leen nuyoo di nuyoo mbokk internet yi nga xam ne ñoom ñooy seetaan yëpp di leen jaal yéen ñëpp di jaal àdduna jaal Sénégal ak famille ñi nga xam ne ñoom ñooy famille Ndiaye am di jàmm yeeg xarit yeeg yëpp di wax ni njaay man ak moom suñu xamante euh, mi ngi mi ngi mi ngi commencé ci doyen benn événement bu muy faral di def Louga chaque année mu doon ci dem benn jour ñu àndandoo woon ci lañ xamante jour boobu ci lañ mel ni ku xamante cent ans mu nekk nit ku baax xoolam rafet mu nekk nit ku woyof boobu la euh, yàlla dogal sama xamante man ak moom ñu échanger ay numéro di déggante heure bu ma jaay woowee ba keroog muy coupé damay reetaan donc mu nekk nit ku woyof koo xam ni sëriñ Touba moo ñu boole mën naa ni Serigne Touba moo ñu boole ndax jour boobu bi ñu doon dem ci Louga gi ci oto bi ñu ngi doon jàng ay xasida ku xam njaay xam ni. Euh, bokkoon na ci isbu tarixee daaru xuddoos jànkatu xasida bu mag la fépp fu ñu mës a daje man ak njaay rek day daaj jës bu fu ñu mënti daje ci oto muy ci mbedd muy fépp day daaj xasida ma fekk si ko ñu jàng xasida ka fooreetaan bi may bi may yëg nouvelle bi nag ni ma yëgee ni woon sax dafa feebar daf ma woon doon ma laaj benn numéro téléphone yàggul dara parce que gëjoon nañoo gisante bi may laaj numéro téléphone ma jox ko numéro bee ba pare ma naa ko mais ci biir feebar bi mi ngi may reetaanloo comme d'habitude maa ngi naan ko mais sa waay namm naa la mun ma temps yi damaa xaw a feebar ma ne ko mbaa yaa ngi am tan yàlla na la suñu borom jàppale mu ne maa ngi am tan baax ma ne ko dinaa la seet si fan yi incha allah mu ne ma mais comme feebar comme ñëpp rek des fois nga gis sa xarit mun la sama bopp da doon metti wala dara comme parce que mënoo xalaat ni day dem ci jamono jooju noonu mënoo ko xalaat quoi mënoo xalaat ni si jamono jooju njaay dina dem donc noonu la noonu laa ko yëgee toogaat démb ba bërki démb rek ibundi mi ngi may wax naa ma nañ dem seeti Ndiaye ma ne ko dañ jàpp jour ñu dem seeti ko comme dafa feebar démb laa toogaat rek gisaat comme ni ko ñëpp gisee si statut yi ñu gis ni Ndiaye dem na donc mu nekk nit ku baax koo xam ni di bëggal doomu adama yi rek ci lañ ko xamee woon Ndiaye amul benn problème boo xoolee nit ñi nga xam ñoom ñoo daje fii mu di artistes yi di animateurs yi di journalistes yi di nga xam ne Ndiaye euh, nit ku baax la ba pare te ñi ñi maanaam ñi ko wuy si rek di nga xam ji koy ji koy Ndiaye xanaa di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm fi mu nekk gënal ko fi mu jógee yàlla may ko taw feex